إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بokk julit yi gannaaw bañu sante suñu boroom seede na yàlla dong yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede na yonent yàlla muhammad jaamam la bu mu yónni woon ci ñun mu ñuy jàngal naka lañu koy jaamoo ñu ngi ñaan yàlla saxal bi julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit suñu xutbab tey bii day mi ngi jëm ci fàttali benn aaya bu suñu boroom wax ak ñun ci téeréem bu tedd bi ca mooy wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan wattaqu llaha inna allaha shadidul iqab suñu boroom mu ne ay yéen julit ñi dee leen dimbi leen te ci lépp loo xam ne njëkk la ak lépp luy jur ragal yàlla bu leen dimbi leen te mukk ci loo xam ne day jur bakkaar wala muy jur noonoo ragal leen yàlla yàlla ko tar ay mbugal la loolu kon day wane ne la nga xam ne muy julit ñi dimbalante seen biir ndigal la ko bawoo ci seen boroom jalla wa ala ca loolu dong ca la ñuy mën a doon ñoo xamee ne nii dañ cay texe bokk na lu yàlla dogal amul kenn koo xam ne woomle na ku dul yàlla yàlla rekk a woomle keneen ku dul yàlla soxla nga ku la jàppale ci nii wala ci non loolu moo tax ba jullit di war a bàyyi xel lan mooy li nga xam ne mooy taxaw ci dimbilente mbokk dimbilente dana jëkk a jur li nga xam ne mooy boole xol yi ca xol yu booloo ca la njëriñ yépp nekk xol yu teqalikoo ca la musiba yépp nekk loolu tax suñu boroom mu ne yéen ñépp bokk leen mooy ci diine jii ma leen indil bu leen teqalikoo fàttaliku leen ba ngeen nekkee ay noonoo ay noonu ci xéewalug yàlla islaam bi ngeen bokk tax ba ngeen doon ay doomi ndey loolu moo tax ba mbokk jullit bokk na suñu boroom yàlla lu mu yombal doomu aadama mooy la nga xam ne dafa gàllu ci kawam su amee ku ko ci dimbali rek day daal di yomb ci moom keroog ba mu woowee yonent yàlla Muusa yónni ko def ko yonent jëmale ko ci kàccoor bi gën a mag bi nekkoon ci kaw suuf mi Firawna bokk na Muusa lum ñaan borom bi yàlla nag ma may koo xam ne dana ma jàppale ci sama mission bi yàlla nanga ko def Haaruna sama doomi ndey yàlla yàlla na nga ko dooleele yàlla na nga ma dooleele ci moom ba mission bi mu mën koo doxal noonu la ko ko suñu borom yàlla defele Haaruna nekk ci moom ndimbal doon ko wuute ca xeet ba ba mission Moussa jeex suñu borom it mi ngi ñuy nettali kii nga xam ne mooy Ibrahim ba ko yàlla sante na ko na tabax kaaba gi dafa dem ca doomam ja Ismaïl ni ko sama borom daf ma digal benn mbir ndax dooma ci jàppale mu ne ko ah kay Ismaïl daa di dem féetewoo nekk manœuvre di dajale brique di indi baayam ba Ibrahim nekk maçon ñoom ñaar ñoo ànd tabax néegub yàlla ba lii mbokk da ngay gis ay misaal yu baree baree bari yàlla wane na ko ci yonenti yàlla yi na nga xam ne noonu lañ doon sàkkoo ndimbal baba isa ibnu maryam gis nañu ni ba nga xamee ni nii dem nañ ba buur ba mu dajeeloon ak i notable am bundu xataal ko daf ne man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah noonu la làbbi jógee na ko ñun dey ñun ñooy doon dimbali yàlla ci yow looloo tax ba Isa jógee it ci kaw suuf ñoom ñoo continuer mission Isa ba yàlla ña yàlla dogal ñu deeyaale la nga xam ne mooy diine bu sell te booba lislaam ñëwagul yàlla dogal ko ci ñoom naka noonu it sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne bi ko yàlla tegee mission bu màgg bi mu nekk mu jéelu yonent yàlla yónni ko ci àdduna yépp bokk na lu mu doon wut ana ku koy jàppale loolu taxoon na ba da demoon na ba Taif quatre-vingt-dix kilomètres mu dox ko ngir wut ñu ko jàppale ak ne nekk ca yoon ba ñoom ñépp gàttal daal di koy gàttal gan daal di koy gàntal noonu la daan demee ca jamonoy acc giir arab yi buñ ñëwee muy wër ana ñan ana ñan ñoo ko mën a jàppale ba mu jottali mission ñu koy gàntal di ko gàntal ba suñu borom yàlla boole ko giir yi gën ci ñuy dimbali ca mooy waa ansaar yi nekkoon ca madina nga xam ne ñi ngi jóge woon quatre cent kilomètres de Makka waaye ñoom la yàlla ubbi seeni xol ñu ne ko ñëwal ci ñun soo ñëwee daañ la aar ni ñuy aare suñu njaboot looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dem madina ba sahabatul kiram ñëwee doon muhaajiruun bàyyi seen alal ak seen njaboot waa ansaar teeru leen yaatal leen ci seen kër ya yaatal leen ca marché ya yaatal leen ca tool ya bal gënale leen ci seen bopp ba suñu borom yàlla tagg leen yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñii di waa ansaar di waa madina demoon nañ ba bu ñu amee benn xam ne seen mbokkum muhaajiruuna bi amu ko dañ koy xañ seen bopp jox ko loolee mbokk di ngay gis moom la borom bi subhanahu wa taala taggee bàkk ko xeet bi ca mooy jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi day lenn la ña nga bokk ca la ca des dañuy dégg lu baax di teru lu bon dañuy taxawal julli di génn azaka di topp yàlla ak yeneen ci yàlla noonu lañ meloon ba mu di nekk benn jëm comme na ko yonent bi alayhi salaam melale mu ne jullit ñi day seen bëggante gi ñuy bëggante yërëmaate bi ñuy yërëmaate dañuy mel ni benn jëm heure boo xamee ni nii am na lu metti lenn la la ca des yépp yëg ko ci yaram bu tàng ak ñàkk a nelaw lii mbokk mooy diine lislaam mooy ku nekk jàpp ne sama moroom kat sama ci man la bokk lu ko metti war naa taxaw mu deñ lu mu ñàkk su ma mënee ma jàppale ko loolee lu tax mooy defaluma ko sama bopp laa ko defal loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax ne jullit ak mbokk jullitam dañoo mel ne benn miir bu taxaw mbokk xoolal miir bi birig bu nekk ma nga yenu moroomam ma nga toog ci kaw moroomam loolu it la jullit ñi ma la mel mooy da ngay dimbilaate ñu lay dimbile yiw nekkul ci kenn koo xam ne ni du xalaat dimbili kenn loolu mbokk yërëm gi nga yërëm sa bopp yërëm bi nga yërëm sa bopp xamal ne fan la gën a gaawe moo yërëmal sa mbokk jullit dimbal bi nga bëgg a dimbali sa bopp xam nga fu mu gën a gaawe dimbalil sa mbokk jullit xamal ne suñu borom yàlla loo ko lebal la lay fay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ay waay jullit day xam leen ne jullitay mbokkam jullit du tooñ mbokk jullit jullit du seetaan mbokk jullit ci ay coona képp koo xam ne yaa ngi sa aajo mbokk jullit yàlla mi ngi taxaw ci say aajo képp koo xam ne xettili na ab jullit ca njàqare ak tiis ya nekkoon ci moom yàlla dana ko xettili ak ca njàqare ak tiis yay ñëw yowmal qiyaama koo xam ne suturaal nga sa mbokkum jullit yàlla dana la suturaal àdduna suturaal la alaxira e waay xam leen ne yàlla ngi taxaw ci dimbali ab jaamam fii jaamam mi ngi xalaat dimbali la nga xam ne moom mooy mbokku jullitam ay yéen mbokku jullit jullit daa war a sax di dimbali mbokku jullitam daa'iman xatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo yégee sa mbokku jullit daa tooñ sax jógal dimbali ko buñ ko tooñee dimbali ko saxaaba yi na ko ah xam nañ daal ki nga xam ne moom dafa dañ koo tooñ ñu dimbali ko waaye yu mu yàlla yónni kii tooñ nag moom nuñ koy dimbilee yonent bi alayhi salaam mu ne yéen ñépp jóg leen jàpp ci loxoom ne ko diw yaa tooñ bàyyil tooñ noonu lañ koy dimbilee ay yéen bokk jullit xam leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokk na lu mu daan wax sahabatul kiram te jëf ju màgg ja gën a màgg ja yonent bi doon def ak i sahabaam te mooy jihaad fi sabilillah mu ne xam leen ne day képp koo xam ne gis na kuy jihaad ci yoonu yàlla mu jàppale ko ku mel noonu mel na nga ko jihaad ci yoonu yàlla képp koo xam ne gis na ku dem jihaad ci yoonu yàlla mu wuutu ko taxawu ko ci këram ku mel noonu mel ni ne ku jihaad ci yoonu yàlla e yow mbokk julit xamal ne xëy suba bés bu nekk xalaat tey ana naka laa mën a dimbalee ab julit loolee ca taxawaay ya gën a màgg la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne doomu aadama yi day am nañ ñetti téeméer ak nangam ci ay cër yu nekk ci ñoom cër bu ne war nga caa génneel sarox waaye xam leen ne bépp tasbix subhanallah alhamdulillah ila axiri loolu lépp ay sarox la waaye foo diglee lu baax génne nga sarox foo teree lu bon génne nga sarox foo dimbilee sa mbokk jullit génne nga sarox donte ne boo jullee ñaari rakk ca yoor yoor dana mën a remplacer loolu lépp ay yow mbokk jullit yow mi bëgg teddaange àdduna ak teddaange àllaaxira xamal na yoon ba ca gën a gaaw mooy fexeel ba taxaw ci aajo yu mbokk jullit yi loolu boo ko defee suñu borom dana la teral te du la toroxal mukk loolee ñoo ngi koy jële ci soxna soo xamee ne nii su yàlla yaataloon xelam la muy xadija bint xuwaylid di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daanaka moo ko jural njabootam gépp xadija boobu nga xam ne moo bokk ci ñi ko jëkk a dalal keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee ca la nga xam ne nii mooy xaaru xiro ak tiitaangeem ba keroog ba mu jëkkee daje jibril alayhi salaatu wasalaam mbir bi yéem ko tiital ko bi mu ñëwee bokk na loo xam ne nii day xadija wax na ko ko te mooy ay yow muhammad xamal ne day yàlla du la toroxal mukk ci àdduna ndax yow yaay ki nga xamee ni nii heure lu ñàkk ci dëkk bi yaay dem wuti ko ba nit ñi am ko koo dégg gàddu na ay bor yaay taxaw dimbilu ko ba mu fay ko gan gu tumuranke ci yow la ñëw koo dégg ne nattu dal na ko da nga dem seeti ko loo mën nga jàppalee ko maa ngi lay seetaa maa ngi lay waatal na wallahi laa yuxzika allahu abada yàlla du la toroxal mukk mbokk soxna soosu loolu mu waxoon loolu la yàlla def waxuma yàlla toroxalul ab yonentam waaye yàlla yëkkati na ko mu tiim bi ndaa fanam yi loolu it mi ngi noonu képp koo xamee ne nii bëgg ngaa tedd àdduna bëgg a tedd àllaaxira xamal na yoon ba gën a gaaw may xoolal naka lay def ba doon koo xam ne nii damay jëriñ julit ñi damay dimbali julit ñi mbokk abdullah ibnu omar radiyallahu anhu nee na toog nañu ak bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn kaw kaw jóge ca àll ba daal di ñëw na ko ay yumi yàlla yónni waaw nit ñi moom kan la ci yàlla gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ahabu nnaasi ila allah anfa'uhum linnaas ki yàlla gën a bëgg ci jaam yi mooy ki ëpp njëriñ ci jaam yi gis ngeen ki yàlla gën a bëgg mooy ki ëpp njëriñ ci jaam yi daana am na ci beneen xadis it mu ne xayru naas anfa'uhum li naas wax na sahaaba yi xam leen ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal njëriñ nit ñi gannaaw ba xam leen ne it gis bi yàlla gën a bëgg moom mooy mbig moo tàbbal sa mbokkum julit mi ngi noonu gis bi yàlla gën a bëgg mooy nga tàbbal mbig ci sa mbokkum julit imma nga teggal ko tiis bu nekkoon ci moom wala nga fajal ko aajo bu mu mënul woon a fajal boppam rasul sallallahu alayhi wasallam teg ci wax ju rëy rëy mu ne xam leen ne ma jógoon ànd ak sama mbokk jullit bu nekk bu am soxla ci aajo ma ànd ak moom ba aajo bi faju loolu moo ma gënal ma toog sama jàkk bi weeru yàlla di fi def itikaaf ànd ak sama mbokk jullit moo ma ko gënal ànd ak moom ci liggéey ba muy sàkk ànd ak moom ca soxna su muy dox ànd ak moom ca feebar ba mu bëgg a faju ànd ak moom ci histoire boo xam ne nii am na ko ànd ak moom ànd ak moom ba aaju bi faju moo ma gënal ma toog sama jàkka ji un mois di def ihtikaaf ca la waxoon it ni képp koo xam ne ab julit tooñ na ko meram tar ci moom su ko neexoon génne mer mi feeñal ko waaye mu bàyyi ko ci yàlla tax yàlla dana feesal la nga xamee ne nii moom mooy yaakaar gu mat sëkk la nga xam ne mooy yowmal qiyaama ci noonu it la waxoon ne xam leen ne képp ku ànd ak mbokk jullitam di dox ci aajoom day keroog yowmal qiyaama ba tànk yee tarxiis ci biir siraat moom yàlla dana dëgëral ay tànkam ci loolu ay yéen mbokk jullit xam leen ne la nga xamee ne nii mooy jóg di déglu lu baax ak di teru lu bon moom mooy ndimbal bi gën a màgg boo xam ne dañ koy dimbalante ci sunu biir loolu dong moo ñu mën a musal ca la nga xamee ni nii mooy pertaange suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa wàcce benn saar boo xamee ni nii ni julit bi waree jàngee fatiha noonu la yeeye julit bi war koo xam ba pare xam la muy firi ndax ku mel ni imaam Shafii daana wax bu dul woon ak alxuraan moom dong ci nekk ci saar doon na doy julit ñi te mu bokk ca saar yi ca gën a gàtt lool lool sax mooy saar bi borom bi naan wal asr inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr suñu borom jalla wa ala mu ne mi ngi gin ci temps temps nga xam ne moo ëmb lépp moo ëmb sa dund moo ëmb sa dee jamono bi ngay bànneexu jamono bi ngay tiisu lépp temps moo ko ëmb suñu borom yàlla mu ne doomu aadama yi de ñi ngi ci pertange lu dul ña nga xam ne ñoo taxawe ñeenti mbir yi mooy ña nga xam ne gëm nañ la yàlla gëmlu ñoo xam ne jëf nañ la yàlla santaane waaye ña nga sax di digleente dëgg ci seen biir ña nga sax di digleente ak muñ ci seen biir mbokk lii mooy ndimbal bi gën a rëy boo xam ne nii dañ koy dimbalente ca loolu bokk na loo xam ne nii lu cay doon mandarga lu mel ne jàkk ji ngeen toog tey jii da ngeen di gis yéen ñëpp ngeen bàyyi seeni kër daje ci néegub yàlla bi loolee jàppalante tey jii néegub yàlla bi li fi nekk lépp lu ko jur lu dul loolu ay jurit ñu bàyyi seen kër ñëw ñuy dajale dërëm ni ko ñaat dërëm ba lii taxaw ana ñaata ndimbal moo jóge ci néegub yàlla bi dem di jëm ci doomu aadama yi ana ñaata nit ñoo xamante ci néegub yàlla bi ba ay sëy dox seen diggante ana ñaata nit ñoo xamante ci néegub yàlla ba ay liggéey ak njëriñente yu bari dox seen diggante loolee kon mbokk da ngay gis ne mboole mi jaami yàlla jaamu yi ñu yàlla subhanahu wa taala sant boo xoolee jubluwaay ba dëgg dëgg dëgg na am ngiree ñu dem àjjana waaye bokk na ci it fii ci àdduna ngiree doomu aadama yi xamante jàppalente dimbilente loolee mbokk mooy tax ñu mujj ci perte ndax suñu borom mu ne innal insaana la fi xuus doomu aadama yi perte nañu lu dul ñii lépp loo sàgg ne ci loolu rek am na pertaange boo xam ne jural na la ko imma ci àdduna wala àdduna ak alaxira yépp loolu mbokk julit noonu ñu ko waxee ci dimbilente ci lu baax noonu it la suñu borom jalla wa ala daadu ñu ne wala taawanu alal ismi wal udwaan fexe leen ba bu leen dimbilente ci lenn loo xam ne day jur bakkaar wala muy jur noonu aka bari doomu aadama bu deful bakkaar directement te yàlla bindal ko bakkaar ba ba mat sëkk xoolal lu mel ne sàngara benn kaasu sàngaraa ngi nii yonent bi alayhi salaam nee na yàlla rëbb na ci fukki nit ca kenn moo ko naan nee na ka nga xam ne moo ko doon pressé mooy ñuy liggéey sobo ak fu mën a doon di liggéey sàngara bi ak ka ko sant ak ka nga xam ne nii moo ko yenu yóbbu ak ka nga xam ne moo jël di ko denc ka jël di ko jaay ak ka demoon di ko jënd ak valet ba ñëwoon di ko servir ñoom ñépp ba baa ka koy naan fukki nit yàlla rëbb na leen ci sàngara xoolal riba bu bon bi kenn moo koy moo koy jëriñoo yonent bi alayhi salaam nee na yàlla rëbb na ci ñeenti nit nee na ki ñëw jox ko riba bi mooy lépp ci moom teg ci moom riba yàlla rëbb na ko kii bindi ko contrat ba yàlla rëbb na ko ña taxaw di seede yàlla rëbb na ko kii nga xam ne mooy lekk nger yonent bi alayhi salaam nee na yàlla rëbb na kiy lekk nger yàlla rëbb na ko koy jox nger i yow doomu aadama bul dimbali kenn ci bakkaar képp koo xam ne ñëw na ngir def bakkaar njaalookat bu bëggoon fu mu ko defee koo xam ne bëgg na fu muy ubbee fu muy jaaye sàngara koo xam ne bëgg na fu muy ubbee fu muy jaaye kartam ngal la waaye bu ko jox sa kër bu ko jox lépp loo xam ne ni sa responsabilité la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla rëbb na soxna ya nga xam ne ñooy nekk di yokk seen karaw yàlla rëbb na ko toog di ko yokkal karawam yàlla rëbb na ña nga xam ne ñooy def ay jamutoñ ak i tatouage yàlla rëbb na ña nga xam ne ñoo leen koy defal ñee nga xam ne ñooy xar seen bëñ ngir taar ak ña ko koy ña ko koy xar waral ñoo ñëpp yàlla rëbb na leen loolu moo tax ba julit nga la way maytul si kemtalal kattan ci doon koo xam ne da ngay doon sabab ci dimbilente la nga xamee ne nii lu baaxul la mu bokk nag ci loo xamee ne nii lu ci gën a nekk musiba mooy jamono bii nga xam ne nii suñu boroom subhanahu wa taala nattoo nañu mbokk lii di portable nga la way doomu aadama xoolal yow looy seetaan ci sa portable waaye xoolal looy partager ci sa portable nga la way fexeel ba bul nekk mukk di tasaare loo xamee ne nii dafay woote ci yàqu jikko bul nekk mukk di tasaare loo xam ne dafay nekk di yàq ay pas-pas ndax loolu mën naa wër àdduna ca mboolem koo xamee ne nii woo nga ko ci lu bon lu bon loolee mu def ko yàlla dana la bindal bakkaar bu tol noone kum ko jàngal kum ko jàngal ba ila yumi din waaye naka noonu i tamit au contraire allah way nga la waay portable yooyee xoolal lépp loo xam ne waxtaan la buy woote jëme ci yàlla waxtaan la buy woote jëme ci jikko yu rafet ngal la waaye partagé ko koo ko mën a partagé yàlla subhanahu wa taala mooy xam ana kan lay jubal ca la nga xamee ni nii moom mooy ay jaamam lii mbokk julit moo war a nekk la nga xam ne mooy ngànnaayu julit rawatina yéen jeunesse lu bëri ci yéen da ngay gis yéen a ngay daje ay association yu dul jeex ay centre culturel yu dul jeex waaye malheureusement la ci ëpp ma nga jëm ci culture ci football ci politique ci nangam ci nangam waaye day leen jàppaleente ci lu baax jàppaleente ci daje di jël ay masala xam-xam di ko jàngalante seen biir jàppalente leen ci lépp lu ngeen mën a amee ay kees entraide ci seen biir loolee képp koo xam ne daje nga ak moom ci kaw suuf nga yëg ne mi ngi ci aadu nga la waay dimbali ko xoolal li ñu yàlla nettali ci yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa ba mu jógee Égypte ci histoire bu gudd dem fa nga xam ne mooy Madiana ci côté Jordanie nee nañ bi mu ñëwee suñu borom nee na bi mu ñëwee fekk na waa dëkk ba ci benn teen ña ngay nekk góor ñi di root mu gis fee ñaari jigéen ña nga fekk seenug jur Muusa dem ci ñoom ne leen waaye yéen lu tax ngeen toog ne à l'écart ñu ne ah ñun kat mënuñoo ànd ak góor ñi di root te ñun day suñu bàyyi daa mage mun te ñëw di root moom tamit Muusa daa di dem ci biir góor ña di root di indil soxna yi di root di indil soxna yi ba seen jur pare xamu leen tey la leen mës a gis xamuñu fuñ jóge soxna ya daa di dem nibbi Muusa daa di dem moom ca taatu garab ga daa di toog suñu borom moo ñu nettali rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir ah yàlla day sonn naa aajowu naa mi ngi noonu waaye suñu borom mii dogal lu ko soob soxna ya bañ demee ba nettali loolu seen baay baay bi ne leen dem leen woon ma ngóor soose bañ demee ba woo ko Moussa alayhi salaam ñëw xamal ko may kan xamal ko fan la jógee loole da ngay gis Yaquub ah ka nga xam ne mooy bu waaju baax joojee am nañu ixtilaaf ci kan la almuhim waaju baax la woon kenn ca doom ya moo ne ko bàyyi kii ten ko fexe convaincre mu toog ci kër gi doon koo xam ne nii dana la mën a sàmmal ko kii gën ci ki ngay dimbali koo bàyyi mooy ko wóor ca am kàttan ca bàyyi de ñun kii gis nañ ko bi muy root ca bàyyi de kii gis nañu nim jëflante ak ñun kóolu teem nanguwuñoo xool nanguwuñoo topp lu dul dimbali nañu bàyyi ñuy dem ca la ko waaju baax de ne xanaa doo kaay ñëw ma may la kenn ci sama doom nga sàmmal ma juróom-ñetti at soo ko mottalee fukk loolee sa ngëneelu bopp la mbokk suñu borom bu ñuy nettali loolu mi ngi ñuy nettali li nga xam ne mooy entre aide dimbilente bi doomu aadama yi war a dimbilente ci yàlla tax dimbili koo xam dimbili koo xamul kookee na doon góor la kookee na doon jigéen la ca xam ne heure boo ko defee ci yàlla tax résultat bala ca yàllay fay ci àdduna da ngay gis ne dana ëpp loolu téeméer yoon avant alaxira xoolal Moussa alayhi salaam benn ay jigéen la dem rootal leen mën naa même pas une heure de temps delluwaat ca fa mu toogoon waaye loolu jural na ko mu am kër gu mu dëkk doonte ne dafa tumuranke woon jural na ko ñu may ko soxna jural na ko mu am fu mu nekk ba nekk fa en sécurité loolee mbokk suñu borom bam ñu koy wax misaal nekkul ay lépp ay théâtre ay cinéma waaye dafa bëgg ñépp jël ci ay leçon rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ay jeunes ngeen li ñuy dund mooy jamonoy profit li ñuy dund mooy jamono yu opportunisme la nga xam ne moo feeñ ci média yi mooy politiciens yi jiite réew mi la nga xam ne moo gën a feeñ ci nit ñi mooy ku nekk sa intérêt bopp waaye nga la way xamal ne yow jullit bi am xellu sa intérêt bopp xam nga mooy lan fexeel ba dimbali doomu aadama yi sa intérêt bopp xam nga mooy lan li la yàlla wërsëgal ak néew delloo ko jaami yàlla ca yaakaar yàlla jalla waala yàlla du deñ di la yokk àdduna ba baa ngay dajeeg moom mu tabbal la àjjana ci ay ngëneelam yal na yàlla dimbali ñu ci àdduna ak alaxira yal na yàlla saxal suñu xol ak ndimbal yal na yàlla wërsëgal ñuy dimbal ku ñu xam di dimbali ku ñu xamul yal na yàlla musal ñu ci lor benn julit yal na yàlla musal ñuy dimbalante kenn ci loo xam ne mbirum yàlla da caa nekk allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi laxirati hasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin allahuma habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra والفسوق والإسيان وجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين